Heavy Bass.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 ñaar at ak ñaar ñoom bi ñu jàppante ci la ko waa ji jàmpaaka ëskay naka noonu ñu jël ko dal di ko évacuer ca l'hôpital maçon bi dal di fa jaaree ñàkk bakkanam mbir moomu nag mu ngi woon ca quartier Case ba nekk foofa ca Kër Massar bi loolu amee woon nag ci la ñu informé woon brigade gendarmerie bu Kër Massar naka noonu ci la ñu ñëwee woon ci bërëb bi ñu faatee maçon bi dal di defoon constat yi faat moom dafa woon may ñu koy wër taw ko gis ci la ñu informé woon brigade de recherche bu Kër Massar ñu dal di jël dossier bi waaye li wane xarañ gi suñu kaaraange gi xarañ ñaari fan kott lañ ci teg waa ji rey ñu arrêté ko ca Bignona <laughs> sama gars yi dañoo xarañ de lu ni mel nag mu ngi am ci lëkkaloo bu élément major Abdoul Aziz Kanji lëkkaloo ak Pandor bu Bignona fi mu ne waa ji teg nañ ko loxo ba indi ko ci Ndakaaru <laughs> ma ne ko ku fi def defal loo xam de ndax suñu gars yi du leen rëcc moo tax dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca gaar bu mag ca Touba doy na waar ñaari nankatu sàngara daal ñoo fa doon xeex ba kenn ki jam moroomam paaka mu jaare fa faatu cay mim réew te faat nag dara indiwu ko lu dul ab buteelu sàngara benn nankatu sàngara bi dafa teg buteelu sàngaram boo xam ne mu ngi ko jëndee woon six mille francs naka noonu ci la beneen waay bi daal di ñëwee ne tungaañ buteel bi daal koy gundux ba mu jeex teg sawaay ba mu ñëwee xool butéelu sàngaram gisu ko quelque temps après rek ci la dem attaqué sa waay ne ko foog mu fay ko prix bu mu jëndee butéelu sàngara bi toll ci six mille francs ci la ñu jàppantee ñoom ñaar ba waa ji dal di jël paaka jam ko ko mu jaare fa ñàkk bakkanam ndax butéelu sàngara tey Sénégal waa ji nag bi mu defee lu ni mel ma ne dafa daw ne may ci réew mi ma ne ko dóora ci de sama gaay waaye fukki fan juróom lañu ci teg moom it élément commissariat bu nattu dal di koy teg loxo fii ci ndakaaru ñu fàttali na ñaar ñi doon xeex te sàngara boole leen nee ñu ay xarit lañu ay waay mim réew moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax escroc nga xam ne ak nationalité camerounaise la yor te doon bëgg a rey biro yi weccee xaalis ca Thiès doon leen wàmmi fi mu ne teg nañ ko loxo waaw góore waay waa ab camerounais la sa waay xaw naa rey ña doon weccee xaalis ña nekk dëkk ca Thiès waa ji nag ni mu doon defee yëfam mooy day ñëw indi ay orom ne daf koy wecceeku franc CFA bu waxaaleeg yow ba ci ab prix ngeen tàmbalee te ngir nga wecci ko waa ji bu demee ba ci biir tanaan Abdallah bàyyi na ko fekk boobu am na lu mu rocc ci lañ ko doon wecci <laughs> gars yi dañoo aay de bi mu ko defee benn waay nag sa waay ci la ko signalé ci ñeneen ñi weccee xaalis ca Thiès ba waa ji mujj nañ ko teg loxo ca marché central bu Thiès ma ne leen gars yi dañoo xereñ waa ji bi ñu koy lanken nag nee na bi muy dugg ci réew mi di Sénégal ci suuf la jaar bi mu ñëwee ci la logé ci ab hôtel bi ñu defee perquisition ci këram gi nekk ci Ndakaaru nañ fa ñeenti million xobbet xobet ak deux mille deux cent yi mu yoroon waaye alal jooju yëpp nag selle nañu ko te biye yi benn du ci foo biye ma ne réew mi lu ne dina fi dugg réew moo xam ne kom rideau may ga ku ñëw fëgg toog fu waay fàqee dugg waay yu ni mel ni dañ gis lu ne waay réew moo xam ne fu ne la waay di jóge di dugg jóge di dugg jóge di dugg fii lépp a ngi fi lu ne mën na fee xew mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz